ku wax màggalug Touba di nga ni couverture médiatique di ëttu taskay xibaar yi nga xam ni ñoom ñëpp ñu ngi mal dëkk bu sell bii di Touba ngir amal couverture bu mucc ayib fësal li nga xam ni moo fi xew ci àddina wëlngël këpp. vision yëpp li ko daggee 2STV i rajo TFM DTV ba ci RTS ñoom ñëpp teew nañ fi ñëw ngir fësal xibaar yi nga xam ni. Oustaz Maodo fay di xam le ni waa 2STV indi nañ matuwaay yi am solo ngir fësal li nga xam ni. mooy xew fii ci dëkk bu sell bi di Touba di jëm ci màggal gile. nooy Serigne Saliou ba léegi télévision bi mosu ñoo tegg seen tànk ci li nga xamee ne moom la ñuy def te loolu yaakaar naa ne ku yàgg a seetaan 2STV am nga ci ay firnde yoo xam ne yu wér la man mii nga xamee ne dama fay def ab émission boo xam ne bii moom la ñu duppee eh, yoon wi kenn ku nekk xam na ni. la fay jaar ci wàllu màggalu Kazu Rajab googu sëriñ Abdou Lahad googu ak gu mu mën a doon ci njabootu sëriñ te man may waxtaan yooyu kenn xamu nu mu toll. non mais toujours xam nga dañuy rénover maanaam c'est-à-dire que à chaque chose dafay am lu muy laaj 2019 bi li mu laaj mooy xalifa bi fi nekk xalifa bu yees la mu di mun Mountakha Mbacké kooku itam bi mu ñëwee barki Dembo Ndiaye ñu firi ñu ubbi lu mel ne Massalikul Jinaan il est tout à fait normal que ñun tamit moyens yi ñu doon déplacé. waa i rajo ki nga xam ne moo jiite seen équipe technique bi di xam le ni ñoom tamit donte la gulet la si télévision bi ngi muy teewee màggal waaye it nekk na expérience bu yees boo xam ne dinañ ko dund waaye tamit jëleen ay matuwaay yu am solo ngir amal innovation ci bile màggal. waaw xam nga tubaab moom comme day drainer monde bu bëre ba boo day xool c'est un rendez-vous médiatique ñëpp fi la ñuy daje donc dul nekk luy facile parce que ñun boo day xool u semaine avant ñëw leen fi def repérage. pour xool yan mesure la ñuy jël yan matuwaay la ñuy jël en terme logistique technique et tout ça ak suñu emplacement beeg côté hébergement et tout fu nu war a mën a nekk ak yooyu donc une semaine avant ñëw leen fi def benn repérage ba xool saytu loolu après ñu ñëwaat fi nii quoi donc depuis lundi ñu ngi fii donc bon mën naa wax yomb na yombul parce que on a déployé les moyens logistiques qu'il faut le bi aussi pratiquement beaucoup de monde sont là beaucoup na monde est là du moins donc euh, ñi ngi ci wàccuwaay liggéey bi ñi ngi. ñu nekk équipe boo xam ni ay ndaw lañu ñu toll ci limu fanweer ñu yëngu ci télé bi ci rajo bi ba site internet bi lépp ngir fësal xibaar yi nga xam ni moo jige ci màggal gi ñu yóbbu ko ci àddina wëlngal këpp. Ah, mooy li ma la wax sànq rek jël nañu sunu ay matuwaay comme il faut dem nañu Sonatel jaar fi ñu war a jaar pour am ay fibre optique pour. lu lu yombalal sunu liggéey donc euh, voilà ak oustaz Maodo Faye di xam le ni El Hadj Ndiaye nekk na ki nga xam ne moo njëkk a def direct fii ci réewum Sénégal màggalug Touba mu nekk loo xam ni bànneex la tey mu gis ay télévision yees wala boog site internet yi ñëpp ñëw ngir suubu ci liggéey bi nga xam ni mu ngi ci lee boobaak léegi mat na ay at ñi njëkk def direct ci màggalug Touba mooy 2STV kooku moom ñëpp xam nañ ko gannaaw gi nag la télévision yu bëree bëri ñëw te loolu lu jaadu la ndax euh, kuy liggéey da nga am wujji amul benn problème bi loolu amee itam El Hadj toujours moom dafay wax ne li nga xam ne jëm na ci wàllu màggal gi bu jotee bu fi benn otom des képp ku am xam-xam ci mbir mi na nga dem. loolu nag tey jii li nga xam ne ñëw na fi ci matériel logistique sur le plan ressources humaines suñ ko doon évaluer ay millions la yoo xam ne yii Sëriñ Tuubaa jaral na parce que moom. Euh, suñ sukkandikoo ci kuréel gi nga xam ne moo yor organisation taskatu xibaar yi fii ci màggalu Touba ñu ngi xam leen ni jot nañoo jébbal lu tolloog junni ci ay taskatu xibaar ay mu nekk loo xam ni bariwul muy am ci màggalu Touba waaye tamit innovation bi nga xam ne jàpp nañ ko mooy carte yi nga xam ne daanañ ko joxe ren dañ ko soppi def ko moom gën a may ngoog jamono. kon boo bokk couverture médiatique bi màggalu Touba gi nga xam ne dina ko amal ni ki ëllëg nekk na loo xam ni dina am ci anam yi gën a sell suñ sukkandikoo ci ñi nga xam ni jot na leen a dëkk suñuy micro